diggante ak yow mbokk la ak deret ak cofeel ndax nit mën ngaa bokk ak moom te doo ko naw nit mën ngaa bokk ak moom te doo ko bëgg nit mën ngaa dëkk ak moom te doo naw nit mën ngaa dëkk ak moom te doo sopp waaye ñun dañoo bokk ak yow dëkk ak yow sopp la ci sa jikko ci sa ci sa yar ci sa teggin ci sa taalibe nit mën na laa bàyyee nag ci lu ne ba mu ci qualité yi ma lim ku lay bàyyi kay day fekk ci leneen la la bàyyee waaye du caagin daf lay bàyyi ni da ngaa ñàkk teggin wala da ngaa ñàkk kersa wala da ngaa ñàkk yitte wala sa alal boole la doomi aadama kilifa diina nag nopp bi mu yor moo gën a moo gën oreille d'éléphant ndax lu ne ngay dégg ndax ku ne mooy ñëw ci yow ku ne mooy toog wax jotaay bu ne da nga fay dem te da ngay dégg nit ñi di wax tey parrain bii ñu lay def ci gàmmu bii yàlla xam ni bi ñu koy def avant ñu la koy def bokk li nga ciy def ci jamono ji ak ci jamono jooju daanaka wutewul wuute na nag ci benn mbir ndax bu nga yokkoo rek jëf yokk waaye ca jamono jooju nga xam ne sax daawuñu la def parrain fa sa kattan doon toll ak sa doole daan toll yàlla xam na ne ñu ñu daan def parrain azaka bi daawuñu ko joxe yàllaa tax may wax dama wat ci guddi yonent bi danañ fi parrain ne nit daanaka su ma koy wax mu joxe fi fukki dërëm yow boo ñëwee pare ñëw la nga joxe fi téeméer waaye nag da ngaa wax wax ji ndax fii sa kër la te bu fi man daw ci yow la nangam am na fi fay ko li ngay dàq mu dem ci àll ba da nga koy dàq mu dugg ci kër gi ki ni fii naan ko fii siiwal naan ko moo fii pareeg yooyu te yow nga fi dox wala ca la ñu ne yow ca loolu nga ne kon kay cër bi sa cër la ndaxte nag yàlla moo def kër gi mu am ay politiciens mu am ay commerçants mu am ay mécaniciens mu am ay euh, réparateur téléphone ku téléphone am yàqu su ñëwee si man laaj ma ku munta fekk janga koy def dama koy ne jàng ku aay la ci téléphone waaw ku ñëwit di wax wàllu politique te politique gu ma ma ne la politique moom daanaka duma ko def waaye ki ma gis mu koy def te mu doy ma Mamadou Kassé la nit ku nekk nag ah am na ñoo xamante ni say nitu bopp lañu eh, xëy na nag du wër ci dëkk bi yëpp naan leen ànd leen ak kase waaye nit ñi defuñu suñu gisee fi ma teg kase rek danañ xam ne bëgg naa kase liñ lay xamal rek mooy ni bu ragal dara dénk nañ la suñu borom subhanahu wa taala mi ñu bind ñun ñëpp te ku mu aar nga aaru dénk nañ la dénk nañ la maam Muhammad mi tax yàlla bind ñëpp li nga wax ci président de la république du lu jeex lu gis la fi mu teg kilifa diine yi ñëpp gis nañ ko Sénégal de fépp foo xamante ne nii kilifa diine yi nekk nañ fa mbooloo ma di fa daje mu am lu ko fa war def na ko ba def fi loo xamante ne nii nit ñi fooguñu ko woon. bu Nimjaat jotee citerne yi di jóge Sénégal di dem foofu ceeb bi di fi jóge di fa dem tant yi di fi jóge di fa dem mun naa ne autorités yi Sénégal teraanga bi ñuy jox jox biir Nimjaat autorités yi Mauritanie defuñu ko biir Nimjaat te Nimjaat ci biir Mauritanie la bokk loolu président Macky sàll mi ngi koy def fii nag kenn du fi géwélu kenn kenn politiquewul fi kenn waaye ku fi def rek ñu wax ko su ko deful woon it boo fi ñëwee dama ne kase ku baax nga waaye sa président bi lii ak lii ak lii waaw waaye nag ñëpp xam nañu ni président Macky sàll li mu fi def gis nañu ko te ñu ngi koy ñaanal nag bu baax waaw ñu ngi koy ñaanal fu ñu toll ñun gëm nañu ni yàlla samp na la te bu fekkente ni waxal dëgg rek moo fi ne avenir u ci kanam ci sa loxo la ne li ma lay ñaan rek mooy gënal dolli rek cër bi nga xamante ni moom ngay jox say naataango képp koo xam ni taalibe la ci kër gi wala nga doonoon sama taalibe waajur dama la koy wax nga dégg ko nga gàbbaay ci xel yow ak ñeneen ñi bokk leen fii ci biir kër gi ndax yow bi ñuy ànd politique taxul ñu ànd bu ñuy ànd nguur taxul ñu ànd te bi nga fiy def sa alal yi di fi def sa doole boobu nguur taxul te alal taxul kon nañ lay ñaanal gudd fan ñaanal la wér ñu fi dugg see euh, si doom laa fiy dugg see te comme suñu baay nekkatu fi Chérif Dieng waxeetu euh, dañ fi ñëw toujours di màggal suñu kilifa euh, Chérif Abrahama mais aussi suñu xarit suñu frère. donc tey aussi bu ñu demee ba nga xamante ne cër bi ñu am ci kër yi moom jël na ko aussi mu fësal ko ci gàmmu bi ba yàlla def ñetti édition tey ñuy tegee saa yu gàmmu gi ñëwee mu cëral ma lu toll ne. njabootu iya, rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu def la ci parrain loolu doy na man chaque fois dama koy wax ne ko cër bi boo ma ko joxee dama ciy def li ma war boo ma ko joxul dama ciy def li ma war yàlla ñu yàlla kattanal ba ñu ñuy boole ci seen biir ndax sag la tey jàpp naa ne képp ku fi jógee doon autorité ñëw Tamba mën nga fee duggee xeet bu ne joxe fi xeetu teraanga yu ne mais jàpp naa ne cër bi ma am ci kër gi dana jafe nga am. gàmmu gi tax na gis nga ne tey jii nii takk der yi nga xamante ne ñoom boo gisee ñu ne esprit républicain ñoom ñoo tax parce que ñoom ñooy les professionnels de la sécurité maanaam tey sécurité publique ñoom ñoo ko yore kon bu ñu xëyee beddil la sécurité publique. indil la croix rouge gaareel la ay citerne c'est parce que la ngay woote ndawul kon tamit ça veut dire que autorité jox nañ la cër te ki fi toogal président de la république muy gouverneur bu fekkee ne premier ministre jox na ay dogal pour que ñu taxawu la ci sa bis te lépp loo xamante ne xeetu gunge la bu état bi wara def ñu def ko ba mat ñun bu heure wax jotee ndonte jox nga ñu cër ñun dañuy jël cër boobu dëxëñ ko delloo ko ki nga xamante ne moo fi toogal président de la république muy gouverneur wax naa li tax ma jàpp la politique taxul de te du mës a tax àdduna taxul de du mës a tax euh, xew-xewu jamono taxul de te du mës a tax li tax ma jàpp la li wolof njaay naan di ngeen booloo ba ñaar a ci am bu dee am ndox la àndandoo naan mbaa àndandoo tuur euh, te man noonu laa jàppee sama and ak yow damay jàng ci yow lu bari ñëw naa fi ba tey nga wax ma kàddu bu baax mbaa nga may ma kaamin mbaa nga jàngal ma loo xamante ne macha nga tëggal ma tabala yoo xamante ne dañ ko daan tëggal Cheikh Sall ah ma jàpp ne cër mënul gën a rëy lool parce que la ma doon wax rek baatin am na zaahir am na ñu lay ñaan ci sa kàttan ak sa mbaax nga ñaanalal ñu président de la république waxuma ko pour kàddu politique de parce que naka jekk sax yaakaar jamono yi politique dañ ko tere ci yenn waxin ci walla ci yenn anam yi ndax dañoo jëm ci ay jongante bëgg lépp maase waaye nag loolu mënul fay cëru président de la république bi nga xamante ne ndonte politique gu ñu dafay des ci moom ndax lépp da koy représenté fii ndax ku ci ne sa kilifa la ci benn cër yónnee na la fi ay ndaw ci benn cër te ndawam dana ñëw wàcce fi ay kàddu waaye ñun am nañ sañ-sañ ci cofeel gi ñu am ci moom ak sopp gi ñu ko sopp ak gis-gis bi ñu am ne mi ngi liggéey ci réew mi lu mucc ayib nga ñaanalal ñu ko shérif ñaanalal ñu ko yàlla kàttanal ko yàlla yokk taxawaayam yaakaar naa ne man bu ma duggee ci kër gi damay éviter di sari ay aaya damay tekki ay aaya mais je pense que bu ñu yeggee ci Al Imran am na lu fa suñu borom wax lu am solo du ci sore waaye yàgg naa xulillahumma malikul mulki lay commencé la ca des bàyyi naa la nga tënk ko nguur loo ci xër-xër yàllaa koy joxe loo ci xër-xër yàllaa koy nangu sabab nag war nga ko mën a am parce que ku ne war ngaa mën a bëgg lépp loo xamante ne cëru nit la ma jàpp ne yàlla moo dogal loolu bu fekkee nag dafa am ñoo xamante ne seen xel mooy dindi li yàlla dogal nañ jàpp ne am na àpp am na diir diir ba nag yegguñ ca mais fileeg ñu yegg ca diir ba nit ñi war jil jël cër bi nga xamante ne ci yàlla la firi ko ci aala imran jox ko nit ndonte nitu neen la ñu respecté ko may ñaan fitna gi nga xamante ne la nit ñi kut ka kut bëgg a installé ci réew mi nga ñaanal ñu mu dal parce que ñun lu ñu am Sénégal rek ci dal lañ ko amee nit bi nga bal ngay Casamance nga ne bala maa liggéey dara dama bëggoon fetal yi ñu féetale ko boor ñu mën a liggéey ci jàmm yàlla may la ci ndam ci juróom-ñaari at yaakaar naa ne kenn waru laa mën a indil ay fitna boo ko bëggee yàlla du ko seetaan man de mooy sama gis-gis ñaareel ba xeetu wax bu ñaaw bu ne ku xëy teg ko ci sa der bi mësoo tontu. ci juróom-ñaari at kooku bokk na ci dal kooku jàpp naa ne bu ñu bëggee yëkkati fitna ci kawam du yomb fépp fuy këru diine ci Sénégal nga yóbbu fay def ko fa samp ko fa ci lu dul dañ am naa yaakaar ne bu dee ñaan mën na dara ci téye fitna ci réew mi fitna du fi am may remercier aussi équipe bu Dakar Actu ñi ngi ànd ak man ñoom it ay partenaires lañu yoo xamante ne nii xam naa ne njëriñu réew mi moo leen tax a jóg. xam naa ne Dakaractu du la rëcc ndax yenn saa yi ma def événement mbir feeñ ci nga woo ma ne ma gis naa ko te booba fekk Dakaractu rek la génn ça veut dire que yow tam da leen di suivre.